محمد محمدوها ديا رمضوها yonent yàlla Muhammad jugal taxaw ca kaw ni màggal ko jug leen الحجاج فل تقوم بسم الله عليه وسلم فتبارك الله لا خط فوقكم يعني يا الله فعلا دنيو سخنا في تاويب من الجاج فل دين بلاق دين بلاق دنيو الاستاذ الامام بيان سلام الاستاذ الامام ابراهيم السك الاستاذ الامام ابراهيم السيسي مسلم ما هذا كومبا سمعنا جاي باس جاي نياكي تياخان ام فايدا ام فلو كم نمكاي واخي كون نيغي نيو نياب كون نيو جيما دالال استاذ جوخ ابراهيم السك مو اوبيل كوك waaw ñu def ñaan ñu ñaan su ko defee jox Ibrahima Seck mu ubbil ko ñu commencé ñu jàng Faatiha saa su Faatiha ayatul kursi yu lexlaas falax ak naasi ñaan yàlla faj aajo yi saafara jàngoo yi yokk wërsëg yi nangu ñaan te def ci réew jàmm te def ko ci réew bi yëpp bismillah ñaan امين طيب. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار وال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما Whoa! الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحياتي إلى جميع الحاضرين والحاضرات وعلى رأسهم رئيس الحي الشيخ مرفات صلى وإمامنا إمام من جانجاي حفظهم الله ورعاهم فأحيي المصرف والمصرفة بتسميتهما هذه الحفلة الكريمة آدكم من جاي وصحنا أمي بي حفظهم الله ورعاهما وكما أحيي كذلك شيخنا أستاذ بران سلام وأهل الصناء رسول صلى الله عليه وسلم وعلى مقدمتهم الحاج بيجي عظام الله عزكم وصرفكم وكما أحيي الرئيس ورئيس هذه الجمعية اللذان بسببهما أقمت هذه المحاضرة السيد مولن جاي والسيد السحنة فام سانقة وجميع أعداء هذه الجمعية والحاضرين والحاضرات تحية طيبة مني إليكم يا أهل هذه الحفلة الكريم وأطلب منكم العفو والسماح من حضراتكم فما كان من صواب في كلامنا فمن الله وما كان فيه من قطه فمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم mbokk yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ziyaara ñëpp ñu fi teew góor jigéen mag ak ndaw di jiital ci ñëw bi ki nga xam ne mooy chef de quartier muy Mor Fati Sall mu yóbbaale waa koñ bi yëpp waaye di jiital imam Mandiaye mu yóbbaale ñëpp koo xam ne yaa ngi dëkk ci koñ bi di leen ñaan yàlla may leen sutura fan gu dëgg wér waaye di ñaan di teg si nuyoo bi ki nga xam ne moom lañu ñu parrain bis bi muy alxaaji adu Kumba ak kiñ ko marilee muy son ami bay di leen ñaan yàlla ñoomit it sutura ak tawféex waaye di ci teg tamit ki nga xam ne mooy suñu sëriñ al oustaz Birane Salaan mi nga xam ne moo fas yéene taxawee eh, bis bii di ko ñaan yàlla fatxu yàlla defal ko sutura mu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim àddalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye ci teg ñi nga xam ne ñooy yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki leen jiite di alxaaji mbay gay suñu soppee di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk leen fa ñu bëgg egg ñoo ga xam yàlla na yàlla eggal leen fi bi jaay yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye di ci teg waa asus bi nga xam ne ñoom ñoo organiser bis bi ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi di président di Modou njaay ak ki nga xam ne moo nekk ci bopp di présidente yu bale jigéen ñi muy Soxna Fama Sanke ak mboolem képp koo xam ne teew nga fi di góor baa ngay jigéen ñi ngi lay jox sa wàccuwaay di wax ne nuyoo bi lépp loo xam ne def nañ ko ci bu jaaree ci yoon bu jubee ci yàlla la waaye bu dëngee ci ñun la ñi ngi baal àq ñëpp di baal ñëpp yaan yàlla boole ñu jégal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk jullit yi ñoo ngi yëkkati kàddu di leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jiiteel ci nuyoo bi. imaam Mandiaye comme ni ko sëñ Bass waxee mu yóbbaale kilifa yi fi teew yëpp ñu nuyu Oustaz Birane ak Oustaz Ibrahima Seck mi mu àndal di nuyu aussi waa Sanaaw Rasoul di nuyu kilifa yu teew ci taay bi yëpp góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu di leen baal wax bu baax di leen ziare di beral nuyu aussi ak euh, sant. ak ngërëm xale yi nga xam ne ñoo organiser bis bi muy waa association pour le développement de montagne waa Bennoo ñu ngi leen di remercier bu baax di leen sant ci initiative bi ngeen am parce que organiser conférence ci gone yaakaar naa ne moo gën ci wàllu diine organiser tànn béer wala sabar wala a football kon nag bu ngeen defee lu mel nii da ngeen di gën a renforcer li nga xam ne mooy seen diine woo ku mel ne oustaz Birane Selaan yàlla may ko xam-xam mu war a leeral te mu am solo mu jëm ci jikko yu yàqu yi donc wax dëgg yàlla am te munta gën a rafet thème bi ngeen tànn tey surtout ci jamono ji nekk jamono ji ñu ngi leen di remercier bu baax di leen encourager te di leen wax ne foofu ngeen jaar foofu la parce que xale day organiser wu lëkkaloo ak ay moroomam xool li nga xam ne moom la yaakaar lu war a jëmale kanam goxam dëkkam mu engagé wu ci kon nag engagement boobu yàlla leen ci yàlla gën dëgëral ngeen gën cee góor góorlu ngeen bañ a féewaloo ngeen àndandoo lëkkaloo ngir développer seen gox te yaakaar naa ne loolu ngeen taxaw depuis ngeen organiser seen association ba léegi yéen ci dox di ci wax yàlla leen ci yàlla gën a jàppale yàlla gën leen a dëgëral sama kàddu du gudd kàddu nuyoo la rek ak kàddu sant waaw di nuyu aussi Mansour euh, le proviseur Mansour ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm di wax ne moom aussi partenaire association bi la lépp lu association bi yëngatu ànd na ci ak ñoom donc loolu aussi ñu ngi la ciy remercier bu baax di la sant di la gërëm mais damay jël paddu gi ci tur aussi sama jarbaat mi nga xam ne mooy soxna Ami Bey moom la xale yi tànn neele ko donc man maa koy waxal parce que euh, ñun ñoo bokk benn maam euh, maamam ak suma maam bokk baay may nijaayam kon mën naa wax sama tur waxaale ci turam kon ami bey aussi mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci tànn bi ngeen ko tànn def ko mu nekk la marraine loolu am na ci mbégte ay mbokkam am na ci mbégte parce que boo ñëwee toog ànd ak sa waajur wu jigéen yaakaar naa ne ànd nga ak ñëpp donc mu ngi ànd ak yaayam faatu ak ay rakam ak ay jabaram ak ay nijaayam ak ay gorom ñoom ñëpp ñëw nañ teew kon faatu vraiment ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm xale aussi kontaan nañ ci sa taxawaay ñu ngi ñëwee rafet na yàlla na la yàlla gën a dëgëral yàlla jàppale la ba lépp li nga xam ne moom ngay bëgg ci diina ji yàlla may la ci ndam lu gën a koy sa njort ñu ngi lay ñaanal bu baax. wax dëgg yàlla am jox nga ñu cër bu baax a baax xam nga aussi li ñu bokk te yaa ngi koy doxal yàlla na la yàlla fay yàlla jàppale la taxaw la taxaw sa njaboot. say say bii nga nekk aussi yàlla na ko yàlla barkeel njaboot gi nga am mu néew yàlla barkeel ko ci barki ñool mag sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ma allahumma salli ala sayyidina ahmadin wa sallim alhamdulillahi allazi xalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira ثم صلاته وسلامه على أسرف الخلق البصير النسير رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وصفيعنا محمد بن عبد الله وعلى كل آله وأصحابه ومن اقتفى بآثارهم واحتدى بحديهم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها بقي جلدي góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nayu te di leen ziyaara te di leen balu di jiital ci nuyoo bi imaam yi fi teew yëpp bu ñu tuddee imaam Mandiaye barakallahu tudd imaam Ibrahima Cissé yóbbaale na mboolem imaam bu fi nekk mu dellu ci li alxuraan di jàngale tasmiyatul baad bi ismil kulli ñu ngi leen di nuyu ñoom imaam yi ak mboolem imaam bu fi nekk te di la ziyaare di la jox sa wàccuwaay di nuyu asatisa yi bu baax ku ci mel ni oustaz Omar barakallahu sunu mag ñu koy ziyaar ak mboolem asatisa yi nekkaat ci jataay bi di nuyu suñu mag aada barakallahu suñu mag alxaji Bachiru Ndiaye ñoom ñëpp kenn ku nekk wàccuwaay bala yàlla jox ñu ngi la koy jox di nuyu Machour mi ak si léegi ñu ñëw fi nag nin fi daa ñëwee ànd ak oustaz Ibrahima Seck barakallahu dina it ñi nga xam ne ñooy suñuy rekk nekkoon di animé booba léegi di tooyal xoli nit ñi ci tagg yi nga xam ne moom la mag ñi bind ci yonti yàlla muhammad yàlla na ko yàlla nangu muy ay tawasulaat euh, mu mel ni temps bi jeex na takk te thème bi yaatu trop waaye orof dafay wax ne lu dul doy loo ci am danga koy doyloo mbokk mi tudd na liñ bëgg a waxtaane muy jikko yu yàqu yi foofu nag jikko yu yàqu yi nag dafa bari fu mu am ay garab yu fa sampe am na garab yoo xam ne ñi ngi samp ci biir kër yi am na garab yu samp ci mbedd mi am na garab yu samp yu samp ci jàngukaay yi waaye it am na garab yoo xam ne ña nga samp ci état bi ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk danga am responsabilité ci defar jikko yi ku ne xam na ne kër yi léegi lu ëpp lu bari dañuy yàqoo ci kër gi lu yàqoo ci kër gi nag bu demee ci mbedd mi gën a rakaaju li bonee ci kër gi bu demee ci mbedd mi gën a bon te loolu dafa am léegi maanaam yar bi ci biir kër yi dafa des rawatina ci ñaari wàjjur yi nga xam ne ñoo séq kër gi di ay royuwaay nit bu dee dafa war a wax nga def mu tere nga bàyyi war a jël melokaanam te lim mel ak li muy wax dara baaxu ci kooku pour mu defar nit du yomb moo tax jikko yàqu ci biir kër yi la départ génn jaar ci mbedd mi jaar ci pénc mi dugg école jóge fa demaat ci état bi ku ci nekk fu ci nekk ak la fa yàqu boo xoolee kër yi wàjjur yu bari nekkatul modèle dama koy wax lu bari wajjur wuy saaga ci kanam doomam kooku doom ji foog mu saaga wajjur wuy wax lu ñaaw ci kanam doomam di yore melokaan bu ñaaw ci kanam doomam kooku nu doom ja mel mooma te li gën a jafe mooy yar bi ci biir kër gi yow toujours da ngay ja war a jàpp ne yaay seetu njaboot gi njaboot gi yaay seen seetu ni nga mel rek la ñuy mel moo tax arab daf naan bul laaj nit ki ku ko jur laajal ki ko yar nit bul ko laaj ku ko jur laajal ki ko yar parce que moo ëpp doole ci moom moo tax ci biir waa waajur ci biir kër yi am na noon war a mel te mooy war nañoo yiwe war nañoo am diine war nañoo am jikko yu rafet lépp luy sikk ak defa ñu nëbb ko njaboot gi ndax it nag xale bi taxaw ci mbedd mi saaga am na fu mu déggee saaga bi doo ko wax xale bi ne ci biir mbedd mi di naxaate am na fu mu jàngee naxaate bi ndax bokk na ci yàq njaboot rek nit di la seet nga ne ci biir néeg bi tane bu diw ñëwee ne leen ko nekkuma fi commencé ngaa yàq njaboot gi commencé nga yàq ci koom pour moom loolu lu jaadu la lu mën a nekk la te baaxul ba ca des mooy di wax lu dul dëgg ci kanamam di wax lu wuuteeg dëgg ci kanamam moom njaboot gi mu koy jël toujours bis bu ne mu gis nga wax lu dul dëgg moo tax ñu wax ne yenente bi doon na bind wax na ci làmmiñam ne yàlla dina bind fen ba bind fen su ndaw ñu ne ko yaa rasulaay lan mooy fen su ndaw mu ne mooy xale bi di jooy nga ne ko noppil maa ngi dem marché danaa la indil tàngal mu daal dina cell ngir yaakaar tàngal yonente nee na boo ko andilul tàng rek bindal nañ la bàkkaaru fen te it yaa ngi jàngalaale xale bi fen am nga ñaari problème yaa ngi yàq suusa bi maanaam yaa ngi jëmbat fen ci njaboot gi yaa ngi wax lu dul am xale bi di ko gis di ko dégg di ko dund ak yow pour moom day defe ne dara nekk ko ci bu ko defee mu màgg ak moom ba làggi ci fekk fi nga ko yaree la ko jëlee moo tax lu gën a jafe ci àdduna nañ ci góorgóorlu te mooy yar ñi ci biir kër gi waajur yi fi ne dafa am nun war a mel ci melokaan ci jëmm ci taxawaay ci waxin yépp te mooy melokaan boo xam ne bu ko xale bi jëlee ci biir kër gi fu mën a dem du doon kuy am ay défaut wala ay bêtise kon loolu nañ ci bàyyi xel Ibnul Xayim day wax ne Ibnul Xayim al Jawzi day wax ne bokk na ci li li ki li njaboot li li borom kër war a mel ci biir këram même bu toogee nag jekkal tooginam ndax xale bi na ci biir kër gi te koy te di ko xool moo tax mu ne bokk na ci ñàkk orma ak ñàkk teggin ak yàq njaboot boroom kër gu toog ci ëttam solul lu mooy selenma tey mu kàllaf sëb dënd ne wàtt ci biti am na ñoo xam sax duñ solo selenma dañu sànni selenma bi fële seen ak mbàq seen jumbax lépp ne ci biti loolu jaaduwul am na ñoo xam ne dañuy toog safar ok seen tuba yi bu dee caaye ñu ok ko ba mu sës seen lupp yëpp di feeñ ci biti te loolu lépp ci yar xale bi dangay ngay moytu lu mel noonu ndax yonent bi daf ne alfaqisu awra nee na lupp awra la kon boo toogee nga jekkal sa toogaay yiwil yiwal sa toogaay toogin bu yiw en tant que wàjjur en tant que mère ci biir kër gi boo duggee sa néeg tëju nag yaa xam mais boo xasee génn ci ëtt bi rek war naa am noo mel sañatoo mel nu la neex bu dee wax sañatoo wax lu la neex ndax dafa am ñeneen ñu lay yi du yow kott yaay ni ngay def yow rek la concerné déedéet am na ñeneen ñu koy jël di ko yóbbu su ko defee loolu nañ ci bàyyi xel même ñaari couple yi muy ñaari wàjjur yi sax ci biir kër gi ci am na loolu buñ koy wax sax bu ko njaboot dégg yénte bi wax na ko nëbbal sa njaboot lenn li ngay séq sa soxna moo tax gis nga ki yàlla yónni dem ba ne nga yor sa soxna ci biir néeg bi mu ne bu leen jotee en tant xale mi ci néeg bi moo xam day nelaw moo xam nelawul xoolal lislaam ci yar ak defar njaboot gi naka sa soxna ci néeg bi di joteeg moom te xale bi tëdd fii mu ne bu leen joti mukk fii xale bi génnul xale boobu tëdd olof daf ne mag mën naa tëdd xamal tëraay waaye bul xam nelawam kon xale boobu am na loo koy moytuloo am na loo koy bàyyiloo xel parce que bari na xale yi lu ñu xam ci mbedd bi fu ñu ko jëlee fan lañ ko jëlee kon yooyu yëpp dafa jar bàyyi xel bàyyi xel jar moytu moo tax tëri tere lu mel noonu jote sa soxna kenn ne ci néeg bi moo xam ndaw la wala mag moo xam day nelaw moo xam nelawul ndax lépp sutura la kon loolu lépp ñu di ko bàyyi xel ci njaboot gi loolu àq la bu ñu war a bàyyi xel kon nag bokk na ci li yàq suñuy jikko wala ci njaboot gi am na ci loo xam ne ci biir kër gi la jógee ci biir kër gi la jógee ñàkk am diine ñàkk wax lu rafet di saaga sa doom di ko dégg di xawee ko sa doom di ko gis nga mel nu la neex lu la neex def sa doom di copier loolu ndax xale moom day mel ni moolu ciment mun lu dugg ci moom rek owaale ak moom loolu lépp dafa jar bàyyi xel ci njaboot gi am na ci loo xam ne ci ñi ñuy roy ci ñi ñuy roy foofa la am na jikko yàqu ci foofu ci côté boobu parce que man bu ma la yaakaaree jox la sama bopp te nekkuloo modèle ndax it am na ci ñoo xam ne luy def buñ la gisee am lu la nëbbal te pourtant yow ñoom nga yaakaar ma nga nekk sama gidd nekk sama yaakaar ma jox la sama bopp da ngay am barab yooyu jaar di ma ko nëbbu bés bu feeñee ci man rek sañ def lu ma neex moo tax muy imaam mu yëpp sëriñ kum ci mën a doon dafa am lu la war am looy moytu am looy ragal am looy bàyyi xel ndax du yow kott ak sa bopp parce que boo tarxisee li nga tarxisal kenn xamu num toll boo yàqoo li nga yàq kenn xamu num toll ndax dañuy defe ne yow loo def rek baax na non mais rek sa loo wax rek dëgg la loolu erreur la dama koy wax toujours léeg-léeg nga gis ku ne bàyyil xeesal mu ne la ah kër ñoom diwus kër sëriñ si xeesal a nga fa mais taxul mu dagal moo tax gis nga erreur bi am foofu xaat kër ñoom diw gi may man mi ngay man mi ngay tere xeesal kër ñoom diw ay sëriñ lanta xeesal mag nga fa jigéen ña fa nekk dañoo xeesal jigéen ña fa nekk dañoo meesu jigéen mais yàlla yónniwul ci yónniwul ñooña yàlla yónni yàlla Muhammad la yónni te joxe na kàddoom ba pare lu bon kenn mënta tax mu baaxati abadan lu baax it kenn mënta tax mu bonati kon ku ne foo mën a ne di def lu bon it taxul mu baax aw du aw sant mayu la ko juddu mayu la ko dara lu bon moom aw sant sañ du tax nga def ko ab juddu tax nga def ko ci ñëpp la araam ittifaaxan kon loolu it fokk ñu bàyyi ko xel kon ñi nga xam ne ñoom la ñuy roy am na nun war a mel ci ay jikko ak ay melokaan ndax ñu mën leen a roy su ko defee loolu benn nitu yàlla def ne bokk na ci melokaanu kuy defar nit bul wax nit ñi bul wax pour nit ñi defar bul wax pour nit ñi pour nit ñi defaru yow yaay defaru nit ñi defaru maanaam na la nit ñi xool rek defaru mais du en tant que say wax parce que wax lu defar nit te mënoo defar nit amul benn amul benn sens te loolu day bari ba tax kon ñi nga xam ne ay njiit lañ muy njiitu àdduna yi ak njiitu diine yi war nañoo gor war nañoo nekk ay gor war nañoo maandu war nañoo jub war nañoo ragal yàlla bu ko defee ñi aju ci ñoom rus a def yenn yi ñu aju ci ñoom bañ a def yenn yi ñu aju ci moom ragal a def yenn yi waaye man ma aju ci yow ba pare lu ma neex def ndax gis naa nga di ko def rusuma dara ndax gis naa nga di ko def ragaluma dara ndax gis naa nga di ko def doo ma yedd ci lépp lu ma def ndax yaa ngi koy def li ma koy defee lu muy wàññ no nu ñuy defaroo loolu day gën a yàq suste bi day gën a yàq mbedd mi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ba ci njàngale ba ci école bi ba ci école bi day am ne ci école bi di jàngale am xale yooyu siqat am xale yu la neex yooyu tànn woo leen lépp luñ def bu dee safaan sax nga baaxal ko ñi nga xam ne nanguwul laa jublu ngir dignité ak yar bu baax bu la neexee lu loo bëgg ci ñoom ñu xañ la ko nga yàqal seeni not am na am na maître yu yàq notu elaw ngir lan li nga bëgg am mayu la ko am ñoo xam ne xam ju dara nga yëkkati leen ban laal asamaan ngir lan li nga bëggal nangul nan la ko ne ci école bi war a yar ñi ngay jàngal ndax dangaa taxaw taxawaay yonent ba pare ci biir xale yi ci biir xale yi nga am ñooy génn nag am ñooy génn am ñooy séq ak ay mbir loolu kii yaraate bu melee noonu ki mu yar nan lay mel ma tax toujours dama koy wax bala maa bala li ma gën ñun waa lislaam yi njëkk a nekk seen problème mooy ku jóg rek am nga buntu wax lu la neex ci ñoom borom daara yi mais li ci école bi mooy yées dañoo ëppi moyen nag parce que daa sëriñu daara bi amuti moyen mais bari na ku ne ci école def bêtise ay pexe tax kenn xamu ko tam am si xale am lu ko ca fekk say moyen ak say pexe ak sa kàttan ak sa daraja nga jaar fukk kenn dool xamee sëriñu daara bi nag amul pexe moomu moo tax moom toujours moom mooy weeru yow yaa ngi def lu bu sëriñ bi defee benn yow def nga fukk mais say pexe say moyen moo tax kenn xamu ko lu si difficile mi ngi am moo tax benn sëriñu daara bu weelee àdduna yëpp dégg ko te ñaata enseignant ñooy weele ñaata ci biir école bi séq xale bi génn xale bi di dugg di def xale bi lu ne mais am nga ay moyens ak ci pexe yoo xam ne ne kenn du ko xam ndax xam nga àdduna yaa gën a mu sëriñu daara bi sëriñu daara bi ne amul boobu xam-xam moom bu jagee rek ñu tukkal àddunaam siiwal ko ci rajo yi wax lu nekk ci moom te pourtant moom loolu mu def di kenn téeméer a nga ko def ci biir suuf tamit te kenn waxu ko loolu lu difficile la loolu lépp xeex lislaam la lu jar a bàyyi xel la te li bokk ci yàq jikko yi ci la bokk nga gis ku xamul dara ba ci ba ci ba ci lépp mi ku xamul dara ñu yóbbu ko foo xam xam ne pexe rek tax mu àgg fa pexe rek mais du dëgg te du mérite loolu lépp bokku na ci li ñuy yàqal kon mbir mi li am solo mooy kër gi na baax ki nu yaakaar muy kilifa diine di imaam di sëriñu daara am na melokaan bu mu war a incarner ci boppam waaye it ñi nga xam ne ay jàngalekat lan su jàngalekat yi parce que ñooñ li ñu ruyee ci sol li ñu ruyee li ñu suyee ci rôle bi dafa yaatu ñiy jàngale ñoo war a jàngale ñoo war a yar am na ñoo xam ne dañuy jàngale kese mais yaruñ kenn kenn lañ yarul demal ndakaaru xale yi jikko yàqu tax na tey buñ meree rek yàqal ñëpp te pourtant ñi nu yàqal tooñul leen ki góorgóorlu ba am otom bu rafet otom bu baax lan la joteeg état moo wut wut alalam jënd otom romb université nga toj otom dóor ciy birig yàqu ko noonu noonu la ñuy defaree am réew xanaa ki élève bi def lii moom jàpp ne ëllëg mën naa doon ministre de l'enseignement est-ce que bu boobaa du bàyyi xel loolu te yaa ngi jàng àggagoo sa kanam yëpp nga def ko xeex ak yàq yàq taal ay pënu lakk ay kër def lu nekk ngir lan loo soxla ci état état jox la ko mais ñi nga yàqal jotu nag état dara ñi nga yàq seen oto xoolal juju àq fooy jàllee àdduna ak àllaaxira kii société bi nga xam ne am na seen kaar seen i kaar dem dikk wala seeni biis di jël nit ñi yóbbu dama ko dikk di liggéey di tedd xamoo fu ñu jaar ba am seen xaalis ak fu jaar ba jëndi oto romb la rek nga dóor ay xeer yàq seen i weer toj ko lakk kaar yi mais loolu kan lan tooñ kan xale yooyu fan lañ jógee ci daara ji kon kon yar amu fa nit bu yaroo bu meroo nit buñ ko yaree bu meree day teey nit bu dee yar nañ ko dëggantaan bu meree day ànd ak sagoom loolu mooy dëgg moo tax gis nga dafa am ñett yu ñàkk te kenn mënatu koo delloosi daara dëgg da daa defar nit da daa defar nit boo fa jógee doo nekk sàcc doo nekk ab agresseur lu ne mën nga koo dundee mën ngaa fanaan fu ne mën ngaa lekk lu ne mën ngaa sol lu ne te doo am benn problème parce que ci daara nga jaar tax defarub daara baax am solo boo demoon tey gendarme boo demoon tey cent mètres bu fa junniy nit nekkee boo xoolee junniy nit boo wutut fukk moo ci jaar daara ñi ci des ñëpp jaaruñ ci daara yi ku jaar ci daara am na noo dul mel mukk parce que doo bon parce que dañ lay tàggat defar sa jikko defar sa xol nga mën a supporter lu ne moo tax daara da daa defar nit quartier da da defer nit leul da da defer nit ñett yi lan lan ñak xoolal ni lël daa defaree nit jël xalé téye ko 40 suur ci all bi lu muy lek bu amul soow di ga dila dur ay galan ay lenje dila jox ñamu nakadi pour toj sa xol bi defar sa rogi pour ëlëk do doon ab bañkat do doon ab do doon ku bon xol bu ëlëgé lo mëna gis muñ ko loo mën a gis supporté ko lu la teg danga ko attan loola ba ko mag ñi daa def defar jikkoo tax moo tax tey lël amatul moo tax da nga ciy jógee gën a yàqu ñëpp lël dadaa yar nit defar sa jikko ni nga ni jëlee ab der teg ko ci mool bi di ko di ko xiir di ko xiis ba mel ni la neex ni noonu la lël daa defaree ruuxu doomu aadama mais tey lu dara amatu ci xoolal ni lël daa def nit galal lu la neex ak lu la naqadi taxawal bu la neexee ak bu la naqadee talalal sa tank bu la neex ak bu la nakare lekkal bo rege mu ne la dang ko lek bëgg lek bañ lek ndox ñu ne la foog nga naan pot bi yoy yep pour toj sa xol bi toj sa xol bi ndax nit xolam xol la am bu sa xol toje nga mën supporter lepp ku sab xol tojut nak alquran neena day melni rek ka annama yasadu ila shama da ngay melni kuy bëgg yéeg ci asaman ta du mën nek abadan kon lolu lu da defar nit la mais tay joge na fi motax gis nga li xew jikko yëpp yàqu nañ te mbedd mi baaxul kër gi baaxul penc mi baaxul waaw mbedd mi baaxul xale yaa ngi saaga wax lu leen neex xale yaa ngi sol lu leen neex xale yaa ngi mel nu leen neex xamatuñ wàjjur xamatuñ kilifa seen yoon ndax fi leen jaarale moo baaxul nit da koy tàggat ci njub yar ko ci njub ba muy xale yonente bi li mu gënee ñëpp te kenn du ko dab dafa judd rekk da ñu jëmbat ko ci yiw ak mbaax yàlla topp ko du bëgg mu def benn faute ak benn erreur moo tax bi ko waykat bi di way daf ne alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan tiflan wa hakaza nujabaa'u mu ne yenente bi li tax mu raw mooy yi mu incarné yépp da koo màggaale dañ ko cee tàggat mu koy màggaale di cëppantal ñu koy xolal maandu gi si moom maandu gi xolal ku judd ñu jox la sa yaay ñu jox la ku lay nàmpal te kilay nàmpal mi ngi nàmpalaale keneen muy alimat saxdiya waaye bu yonent bi jëlee ween wenu ndeyjoor bi bu nàmpee ba ba pare donte réegut boo ko joxee bii day bañ seydina muhammad ndeke li tax muy bañ mooy ndeke dafa yëg ne am nawleem la bokk ak soxna si kon bu nampee ween bii ba suur na bàyyil xel ne am nawleem mi ngi fi moom it moo moom weneen weeni bu dikkee mën caa nàmp moom yonent yàlla muhammad moo tax loolu doy na waar xoolal rek guy maandu ko teel juddu rek ñu jox la ko lay nampal te doon nangoo namp ñaari ween benn rek lay yem ngir lan benneen bi am na moroomam te moroomam da ciy nàmp kon du jël bosam jël bos jaambur du jël wàllam jël wàllu jaambur loola jikko la bu ñu yaree nit yonent bi sallallahu alayhi wasallam teel a tàggatu ci loolu moo tax soxlawut mukk yëfi jaambur mukk kon yooyu fokk ñu bàyyi ko xel defar jikko yi bokk na ci ñuy muñ surtout ndaw yi ñuy muñ bañ a yàkkamti am na lu ne sa kanam boo yàkkamtee doo ci jot waaye tey ma am tey foo tey foog ma am li ñëpp am tey ma am ko tey ma mel ni ma neex amin wu ñaaw rek deegu deegu gaaw ak dund gu yàqu moo koy waral dana ko waral kon nit day muñ xam ne am na foo jëm àggagoo fa waaye muñ la fay àggale nag ndar du xëy rek sotti dangay def ndànk def li nga war a def jaar fi nga war a jaar am ay kilifa bu méttee nga muñ ko bu naqaree nga muñ ko bu jafee nga muñ ko traversé ko xam ne nattu yi ak jafe-jafe ci nga mën a jaar ba am li nga bëgg ëllëg loolu ndaw lu nekk war na ko suraale li tax agressé yëpp li ko waral mooy yàkkamti sàcc da ngaa yàkkamti agressé nit da ngaa yàkkamti dogali nit jël alalam da yàkkamti siif jigéen da ngaa yàkkamti yëpp boo muñ doo ko am moo tax lislaam bëgg ndaw di muñ ndax fa nga jëm a tax muñ benn la ci escalier yi ngay jaar pour àgg fi nga jëm ci yaru lislaam yaru lislaam laa wax lislaam moo yar yar boo xam ne bàyyi du rusa bokk ak doomam jataay doom du rusa toog bokk ak baayam jataay wala yaayam lislaam moo yare noonu waaye fudul ci yaru lislaam bu fa bàyyi fekkee doom dem rus naa bokk moom jataay ba doomit bu fa fekkee baayam daw dem ndax rus naa bokk ak bàyyam jataay boobu kon yar yi bokkul l'islam day yar nit nit ay jikkoom bu ca yar génnee moo bàyyi maa yem mbaa maanaam loola neex def loola neex wax loolu ngay dundee xoolal tey xale yi melokaan bi ñu amee xeex bi ndax jikko yu yàqu gaaw a xeex tux mi ci mbedd mi ndax jikko yu yàqu sàcc alali jaambur siif ngir ndax jikko yu yàqu kàddu yu ñaaw saaga ñëpp di dégg te wajjur la ñu saaga ndax lan jikko yàqu fab lun moomut yàkkamti seen àdduna foog ma am tey foog ma am li ma bëgg ndax jikko yàqu loolu lépp boo ko xoolee jikko yàqu moo ko waral colin mi dara baaxatu ci li ñuy sol baaxul lislaam ba muy yare ci yarub lislaam dem na ba am na benn mbokk ba ma benn benn laaj bërki ne ma ndax football daggan na ma ne ko bu bu juróomi sart amee ne dagan na bu amul nag araam na ittifaaxan ma ne ko ba ci njëkk mooy kii fut kii football bëtu oomam ba jumba bu ca dara feeñ am na walla amul joueur yi jumbax ba ci bëtu woom lu ci feeñ araam na yow mi ko génne araam na ku ko xool gis na lu araam wax naa léegi alfaqi su awra lupp awra la kon bëtu oom ba ci jumbax bu dara feeñ ab jullit bu góor bu mat mu kàllaf amu droit génne jumbaxam ak bëtu woomam ci mbett ak fu mën a doon aram na ma ne mooy première condition bi ma ne ñaareel bi kii football bu dikkee ci terrain bi na soxla bal bi te bañ soxla tànku nit ki defe naa football bi léeg-léeg ñu football ba mu yaaru ñu am ku mu yëkkati génne dañ koo wéq deret bu génnee ci football kay footballatul tànk bu yàqu deret génn xaqan te dana laa darara wala diraara lislaam nanguwul nga lor nit ki nanguwul nga gaañ ko xaqan dafa araam ma ne kon bul bu ci loolu am muy ñaar ma ne ñetteel ba bu tàkkusaan jotee nan arrêté julli buñ paree jo continuer amagum na ci stade bi football ba mu yàgg ñu par ñu ne lan ñu waxtu julli jot ñun léegi bi ñu waxtaan bi tamit jotee nun def dañoo teg lépp dem julli ci est-ce que football gën naa gën naa foor salaatul xaw fi xare xare xare jël jaasi yonte bi yor jaasi saaba yi ànd ak ay yéefar ku ne yor jaasi ñuy xeex te bu julli jotee dañuy sëpp jaasi yi kàbbar boo jàng faatee seen yéefar buy ñëw nga jël jaasi ji soo ko reyee continue àggale sa faatiha gaawru ko bu keneen di ñëw nga xeex moom soo ko reyee continue su jóot noonu ngay def di négocier di njaaba njalle ba am ñaari rakk yàlla mayu lu mukk ne la xareel ba xare bi jeex nga doog a julli waaw fu yàlla mayewut loolu naka la koy mayee ci stade bi xoolal loolu saaba yi di julli saaba yi di xeex boole xare ak koor moo tax jàmm xaw ma daaw la xaw ma daaw jéeg yàlla ñu yàlla musal ci fitna san na jul yëpp ñaan weeru koor bu juddoo rek fitna judd te ñiy judd jurul fitna ji boroomi xam-xam lañ ci weeru koor laa déggee boroom xam-xam bu ne ña dem ña dem am na droit bañ woor lele c'est léeg loolu ña football yi ñu ne comme dañuy football yi te foofa daa tàng am na droit ñàkk woor lele ci football te kat borom xam-xam a ko wax kilifa diine la neenam te am na mbooloo mbokki loolu nun koy firee badar ci weer wi la amoon te yonent bi dafa màtt koor lu gën a mitti badar boo jotini sax danaan ko tey badar de ki badar tàngoor wu métti saaba yi matt koor fukki fan a juróom-ñaar ci weer wi weer wi ñu nekk waaye ba tey sang bi daa oor di xare waaw ku yàlla mayut ku lu yonent bi amul yàlla mayu ko ko kan la ko sañ may nga ne damay football naa ba bay sama koor te joxe ñaari mudd du génn ci mbokk yi suñ diine ji ñi koy ñi koy diine sa ñan lañu ñi ci wax ñan lañu moo tax football bi fokk ñu bàyyi xel loolu bu julli jotee ñu coupé julli ma ne ko beneen bi ci topp mooy kiy football bañ a xonjam ki muy football bañ koo xëram xë xëram ah dafa naa match bu nekk léeg ñu lim ay tur yuti Ibrahima Seck jàppal ñu diw jàppal ñu diw moo muy jaaxal jàppal na ko góor bi jàppal na ko waa ci football kese fan la dagare da ngay jabar nit ki ci football bi ma ne juróomeel ba nag mooy buñ leen tegal xaalis ndax xaalis boo amee rek ñu teg ci seen bakkan ma tax li benn bindkat wax ne àdduna buy tukki ëllëg guerre mondiale buy tukki ëllëg ci football lay juddoo neexu ta weddi de ndax li muy indi ci alal ak li ciy juddoo ak li ciy jeb bi amul lenn lu ko mën a jur moo tax ñëpp moom lañ da wuute àdduna bu tukki la ma ne ko yii bu dajee bu dee kii football sol na lu jot sëkk ju xam ba ci bët woo moom nëbbu na te bu waxtu julli jotee mu julli te bu nekkee ci terrain bi soxla bal bi bañ a soxla tànku nit ki te it bu mu xonjam ki muy football te bu leen tegal xaalis bu liy amee football dagal kon gis nga islam ay condition la lay indi ana ñun tey kon mënul dagan kon fokk ñu bàyyi xel loolu waaye tey xoolal ndaw yi ba ca gën a garaaw xoolal làmb ji xoolal jikko yi ci yàqu waxante lu ñaaw liggéeyante jabarante xoolal dix heures nga toog ci stade ba ba ba gee passé kañ nga jullil yàlla waxtoom yi moo tax benn waaye ne man de li ma gën a jaaxal ci làmb ji mooy mbër mi ñëw dix heures ne ci làmb ji ne ci làmb ji ba bëre heure gexe waaw moom lu tax du tuur ndox lu tax tuuru ndox mu duus man jaaxal na ma juróom ñetti waxtu nga nekk ko ci biir làmb ji ci biir stade bi te gisuñ foo tuuree ndox gisuñ foo tuuree foo demee duus am benn benn waay bu ma ah, seen mbuus gi yaatu na nag seen kuus gi kuus gu rëy lañ yore moo tax mu ne bul fekk fu koy wettee bu ñu koy dindee bu ko fekkee mukk lépp ci ne rawatina ponkal mu ñu dóor ay kufreñ kurfeñ kau mengen ngeen kau xaw fone fu ne ñu dóor la ko ngay daw di lu ne mën nga ko génne kenn da ko dul gis nag waaye mën ngaa génne lu ne tax gis nga yooyu yëpp kon ñu bàyyi xel ci yar bi ñu lislaam di yar war nañoo ñoŋ war nañoo sàmm am dignité war nañoo am lu ñu rus war nañoo am lu ñu ragal loolu dafa jaadu ci yar bi war su yar yar sun njaboot ndax kat dañ wax ne la defaroon ñu njëkk ña moom rek kay defaraat ñu mujj ñi la defaroon mag ñu njëkk ña ak seeni jikko loolaay defaraat ñu mujj ñi bu kon buñ ko wàccee rek yàqu na kon fokk ñu sàmmoon teg jikko yu baax yooyu ndaw yi am kilifa am kilifa bokk bari na ci li ñu gën a sonal mooy ndaw lu amul kilifa day gis ku nekk ak baayam am situation rek di dang-dang yi xamatut baayam faale tut baayam bokkatut teg ko fële keneen lay wax ak keneen lay diisoog bàyyam bokkatul loolu lu garaaw la te ñu ngi koy dund ci jamono bi ñu toll ndaw yu bari bin amee wërsëg rek booleetul seen bàyyi ci yëf yi làmbatun seetatun ab sëriñ leneen gënal seen bàyyi bu boobaa am na ci ro maa ngi seeti sëriñ bi sol li gën a jekk def ambulance ci def ambulance sa poos dem sukk teg lépp ci loxoom te kat sa bay laaj na la ñaar téeméer ci suba nga ne ko papa xaaral tey ni la toll da ko lijeenti doy na war te ñi ndaw yang koy dundu mais tardé al ko àdduna ak alaxira rek bay dafa ken boole wu ko ci yalla ka ci boole ken nag ya ko ci boole ki ci yalla boole ak ki nga ci boole du ben nit mën na juddu ba am ab sëriñ am nga ci droit am nga droit ñak am ab du force waaye baay moom yàllaa la ko jox ba pare ne defal ma ko nii toppeel ma ko nii bul ko ne eh eh rek laa wax mayuma la nga def ko ko yàllaay wax de falaa taquloo ma uffin lu yàgg-yàgg bul ne ko eh xoolal loolu ñu nag tey jikko yàqu yi àgg nañ ci gis ndaw lu taxaw naan paa bi li mu bëgg duma ko def paa day noos rek yàq na sama alal ji loo ko jox mu takkee ko jabar ah paa bi daa bëggi jabar waaw yaa xamati lu tax paa bi du bëgg jabar paa bi bëgg jabar moo gën ñu naan paa bi ëmbal na di musiba la paa bi takk jabar téye ko ci këram moo gën paa bi dox guddi wala ñu koy dàq lépp ñàkk yar la rek xamoo lu sa baay di dund xamoo lu ne ci tempérament am paa bi dem ba dee di takk soxna da ngay gis doom ju ko wax bàyyi paa bi dem ba dee dee dese ko muy takk soxna da xam lu ne ci sa bàyyi doo laaj sa yaay ba xam lu paa bi tax paa bi takk soxna day am di. am na ci soxna yoo xam ne ku ci am cinquante ans ku ci am sët ba nga sa jëkkër bokkatul bu góor gi desee nag am na problème góor gi amam néegam te doo ko seetsi te bu dikkee fekk nga galan xale yëpp sa kanam sët boo am uuf te yow doo dem néegam loolu métti na am na paa yu koy dund wallaay laa sémi am na mag ñu koy dund jaaxle lool xamuñ fun jëm sa soxnaa ci néeg bi am ko te bu ko laal. loolu la amal mais doo ko laal. moo tax fay yëpp fayam kër ci yées fayam néeg fay yenu say bagage garaawul ñëpp xam ne fay nga. jóge na ci kër gi dem kër baayam jóge na ci kër gi dem kër yaayam loolu fay la mu siiw mais am na bu ko yées jigéen fay na ci biir kër te kenn xamu ko ndax lam seq jëkkëram xañ na ko ko yëpp dafa jar a bàyyi xel bu ko defee nag ndaw yi nga xam ne ñooy ne ci keppaar googu. ñu sooraale lu mel noonu ñu bàyyi xel ne seen wajjur yi ay modèle lañ ci ñoom nan jiital seen wajjur ci kum mën a doon gannaaw yàlla ak yonente bi bu fonk di am njëkkal fonk sa wajjur bu màggal di am màggalal sa wajjur bu teral di am teralal sa wajjur waaye nee nga am nga sëriñ loo am yuti ko loo liggéey jox ko lu mu la sant nga def ko daaw ci nawet dama dikk ci génn góor di ko seet si wallaay lancé mi maa ngi ko fekk ta taxaw sax mais dafa toog di bay ci biir kër gi dafa toog buntu néegam ak wanag wi urmbal bi moom la toog di bay ab gopp munta am kàttanal taxaw man ko ah, papa lu xew loo ana diw mu ne ah diw de weer a ngi ma di ko bayloo lii man ko ana ma nag mu ne ma dem na ci ndéqim diw diw de moo wootim ndéqi fa la yendu ji tey te bàyyee mi ngi toog di sukkootu di bayal boppam yoon wi jëm ci urmbal bi mbokk yi xoolee ndeg bi éducation loolu lu mu lan la mën a jur lan la mën a jur sa baay mi la jur sant la nga lànk jaamur sant la nga fëx dem te la ngay def moo gën a métti la sa baay doon sant moo tax bu la ñaanalee du sotti foo mën a ñaan loo du sotti takkal alxuraan yëpp sangool alxuraan yëpp bu bàyyi ne wut waaw dara du dox fokk bàyyi ñu boole ko ci yëf yi dama leen sa nga gis góor jigéen ñi da ngay gis boo xool seetaane télé da yéemu ku ku jóg def naan ma am ba teral sama yaay bàyyi mu bokkut man ke lu ma ne ngeen am am daan am làmb ba am ci ndam yóbbu sama yaay màkk bàyyi moom bokkatut xoolal rek affaire bu garaaw boobu lu tax bàyyi mooy joxe barke yaayay liggéey nag waaye bàyyee joxe barke moo tax ñaari ñaarim ngay wut wutal sa ngërëmal yaay wutal sa ngërëmal bàyyi ñaari yëpp mais bëri na si ndaw yoo xam ne seen yaay lan laxasoog def ko xarit bàyyi seen bàyyi fële lépp lu ñu am seen yaay la ñuy jox bu ñuy wax seen yaay la ñuy wax ak bu ñu dem seen yaay la ñuy tàggu lu ñu lijjanti seen yaay a koy xam bàyyi moom méebal la ci kër gi yëgut da nga gis xale bu xale bu góor bu génn xale bu jigéen ñetti at bàyyi du ci xam dara te yaay xam lépp nga dem ba wax ba mu dëgër yaay ji doog na la waxtaan ci sa papa xoolal foofu ni mu tardé mooy bàyyi yaa ngi fi mais jiitaluma la yaa ngi fi mais jiitaluma la mais loolu tardement la nañ ci bàyyi xel bu yaay ju baax dëgg bu doomam dikkee wax ko dara daf naan ko demal waxtaan ak sa baay mbaa wax nga ko sa baay loolu la yaay doon def ah mbaa wax ko sa baay moo ñu boolu yilif kët sa sa baay sama kilifa mooy sa kilifa demal waxtaan ci sa baay man awma ci baat awma ci kàddu lu sa baay de rek ca laa ne yaay ju baax noonu la doon def mais jërul wax sa papp loo ko ciy wax boo ko waxee da tere yow doxal li ngay dox rek bu mu ci xam dara yaay di ko wax doomam dom di dugg ko genn rek motax bu bu buñ demee ba ba ma jot rek yalla goyal tol bi man ngay bay muy sekk di nar rek nga defane am nga dara muy nat di sekk rek nga dem ba yaakaar ngóob yalla goyal ci dernier moment ba ci finition ba fa la ko yalla yàqee fekk yax baa ngi ci baña a nit ku bax de wajuro rawati rawatina bayam, bu sa yaay bu lo bo wutek sa yaay mo tane nga wutek sa baye lu jar a bàyyi xel bàyyi dafa foor de mais tey dañ koo gannaawal ñu bari da gis ku dem bitim réew tukki am xaalis bu bari dem ndakaaru jënd kër wala mu dem kees jënd kër ah takk soxna sa ko neex dugal ko fa benn at soxna si ko damaa wéet kër gi dafa wéet rëy na kenn nekku fi mu ne ñëw mu ñëw ne ñokket mu ne mu ñëw ne sàqi sàqit yaayam yóbbu ci kër gi xanaa tas na jabari baayam léegi loo bëgg sa baay di ayee ji léegi sa bàyyi sëy tax na sa jabari baay sa baay nekkoon ak soxnaam yow nga jël soxna si sa baay yóbbu mu wéttale sa soxna ne sa sama sama sama soxna na xumb am ko ko wéttale sama baay moom na seeti fu mu jëm sa baay ne cundum ci xàll bi moom gisatut soxnaam yow na nga nekk sa soxna téye sa jabari baay te mi ngi am dëkk yu bari boo demee mi ngi fi teeru bi lu bari mi ngi fi ñoo xam ne tey nangu na defar nañ kër seen jabar munta ne ca àll ba wala munta ne ca kaw ga ñu defar kër def seen jabar dem jëli seen yaay indi fa seen bàyyi des ca àll ba moom mel ni koy doo ko sampaat kër xoolal loolu métti na boo dee bàyyi ju amul fulla nag moom ñaari weer yu ne nga takk sax sax dem du dëgg boo dee ko am dignité déedéet toogal xaar yàlla waaw la nga wuti leneen yàlla gis na lépp doom yi bari nañ bàyyi xel lu mel noonu booleel yóbbu wala nga bàyyi sa soxna si bàyyi mu nekk papa mu nekk borom këram da nga nekk sa soxna ku mënoo ne te yooyu yëpp ñu ngi koy dund ci jamono bi ci jamono bu yàqu bi kon fokk ñu bàyyi ci xel jur yi ak njaboot gi liñ sañ ak liñ sañut li leen war ak li leen warut nañ ci bàyyi xel moytu jikko yu ñaaw yi ñuy dund te mooy yàq ak yàq gu bari gi ndax jikko yàqu yi àggal nañ ci yàq gu bari gi ba ci ba ci booy bëgg soxna li ci xew baaxul te lépp jikko yàqu ma ñu ko indil da ngay dugg ci kër ñu naa kuy bàyyam ñu ne du ñu ne du ñun du dun laal nàngam ñun du laal xeet sàngam allahu akbar ñun suñ xeet du rax da ngay gis ku ko wax ku ñun suñ xeet du rax ñun dun sëy ak diw dun sëy xeet sàngam suñ xeet du sëy xeet sàngam dal di commencé xeet teqale xaat mi yàlla bind ak lim yàlla dajale lu ko gën a garaaw amul sa doom bëgg gis gis ko mu bëgg xolam bëgg ko mu bëgg ko nga ne yow baay ak yaay ngeen taxaw ne du ci dal ndax lan ki sa doom bëgg nangam la te nangam du dugg ci kër gi erreur yu bari la su ko defee li ngay bañ nga am lu ko yées nag xale bi ki mu mënu koo ba ba mënuñoo ba te nangoo ñu def farata ak na ndax nee nga du fi amee fu ñuy dajee doo ko xam fu ñu gisee doo ko xam lañuy def doo ko xam ba xëy fitna am na yàlla nee na bàkkaar ba suma ma xale yow wajur naa la duma ndax fi nga taxaw du taxawaay ñaar buñ bëggante ci farataak na tan war a takkante araamante wun te déggoo nañ ci bëggante nan leen maye ngir fitna suulu ngir aw ay suulu moo gën nga bañ leen a maye te lu bon gën a yiis lu bon gën a am loolu lépp ñu war cee def attention la te mi ngi yaatu lool léegi mi ngi yaatu lool ba ci wajuri dañu taxaw opposé wu nday ji taxaw opposé wu ngir lan du dugg sama kër ndax nangam la te kenn gënut kenn ñun ñëpp a yem ni ku nekk la nga gënee sa morom téere ba nee na booy sangu doo ko summi te muy jikko jara rafet duma takk xeet sàngam pourquoi foo ko teg ndax lan ay tëgg lañ tëgg du dugg ci kër gi ñun duñ laal tëgg allahu akbar mbinde mbindeefam yàlla yàlla bind nga ne nga wexeeb li yàlla bind ko foo ko teg lan mooy tëgg tëgg du ak nit am métier la ah tëgg du nit am métier la pourtant bu sa paan nga yàqoo nga dem ci tëgg yi de su su euh, marmet bi yàqoo nga dem ci tëgg gi boo bëggee jaaroo dem ci tëgg yi te ne doo laal tëgg fu muy sottee doy na waar te lépp li alxuraan waxoon mbokk mi jàng na ko léegi ba ñuy julli la yasxar xawmin min qawmin haasa an yakuna xayran minhum yàlla nee na bu benn xeet xeeb moroomam amaana ki nga xeet moo la gën ca yàlla bu kenn tuutal kenn amaana ki nga tuutal moo la ëpp cër façon sun borom tabaraka wa taala kon nan def ñu ñëpp jàpp ne benn lañ moytu man duma laal jaam lan mooy jaam kan mooy jaam ak jaamab kan nga ku la bind yàlla kon ku la moom ku dul yàlla ñun ñëpp jaam yàlla la in kullun man fi samawati wal ard ila aati rahmanu abdan ñun ñëpp yàlla nee na ci kaw suuf ay jaam lañ yaa ibaad yi lay wax benn patron rek fi nekk muy yàlla subhaanahu wa taala kon lu lépp ñu ngi koy dund mu yàq nag penc mi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax féetale ñii côté ñii ay nangam ñii ñooy nangam ñii ñooy nangam def nga ne ci diggante bi nag jàpp ne gën nga kenn déedéet yonent bi jàngal nañu lu baree baree bare takk nab jaam te moo gën ñëpp maareetul xibti Lumu, mu te ca dom ibrahim ngeen di mi neef ca am ah ca takap karaje muy safiyatu bintu oyay ibnu axtab xoolal lolu ma ngay li ñuy bëgg mi ngi koy dakk nga ne man duma seye kuma ku ma mag du do mag da ngay gis ko ku ñew ci kër bëgg soxna ñu ne la nga xamne man na la yonent bi teel naa dàq loolu bi muy takk ay sa ay sa juróom-ñeenti at la am bi am ñeent fukki at ak juróom yu teg juróom fukki at ak lu teg Seydina Muhammad juróom fukki at ak lu teg takk xale bu am juróom-ñeenti at xanaa loomaate na kon loolu yonent bi dàq na ko fa tëj na boobu buntu kenn du ko lay ëllëg en tant que jullit mu mat ko bàyyi ba doon sax mën na doon ab sëtam far Aïcha juróom-ñeenti at nga takk ko te ki nga takk juróom-ñeenti at lam yow mi ko takk juróom fukk ak nangam ñu ne sa jabar waru laa mag bul takk ko la mag yéen bi ne du dëkk dem takk ko ko magee fukki at ak juróom Seydina Muhammad Xadija magee ne yonent bi fukki at ak juróom kon bunt yi ñuy jaar yëpp di sikkal tey yonent bi fermé woon na ko bu dee jaam mu takk ab jaam chrétien mu takk beneen jigéenu chrétien xale bu ndaw boo xam ne ni sëtam lay tolloog mu takk ko muy Aïcha bint Abi takk jigéen joo xam ne sëy na ñaari yoon ba pare magaat ko fukkat juróom ma takkaat ko lépp ngir bañ gaaf ak biddaa nga gis ku kun may jabar benn yoon soxna sa faatu ñu mayaat ko jabar mu benn yoon soxna sa faatu ñaari yoon ñu tëj buntam kër gum dugg ñu naa ah, ki daay gaaf de ku dugg këram dee ñàkk na kun fi may ñaari jabar ñaari yoon jabar mu dee say boo wut sa jaada dem ca jàkk ca kër goo dugg ñu ne la ñu fottasu la defe na ne koo takk rek mu dee te loolu du gaaf fa Ousmane bi mu bi bi bi ma bi yonent bi mayee soxna mu faatu da koo mayaat keneen mu faatuwaat yonent bi ne ko damaa jeexal waaye su ma dese woon téeméeri doom danaa la ko jox benn par benn ba baa muy jeex xanaa kon yonent bi gaafalul Ousmane te ñaar ñëpp ci loxo Ousmane lan faatoo te ñoo bokk ndey ak bay roqe ya moo mag mu takk jox ko mu faatu mu joxaat ko Umu Kalsum mu faatu yonent bi ne ko wallaahi su ma amoon téeméeri doom daa la ko jox benn par benn ba baa muy jeex kon ku ko dàq na gaaf moo tax yii yëpp nañ ko ba nañ ci bàyyi xel boo tasee ñetti yoon bàyyi nañ la fi pare nga pare nga boo tënjee ñetti yoon pare nga génn góor dootu la jege góor ñi nee nañ koo romb da naan la da ndaw bu la jigéen bu la ndaw si romb daf naan la góor gu repp na kaay ku repp maa ngi bu tinjee ñetti yoon ñu ne saw doxin danga naan ku repp maa ngi kenn du dugg te yooyu yëpp ñàkk gëm yàlla la ak jikko yàqu nañ ci bàyyi xel ay jullit leen kenn ku ne yàlla fam bind ne danga ko dund ak nit danga ko dund ak moom ku yàlla ne ci say loxo lay des dana des ci say loxo ku yàlla na danga ànd ak moom teqali koog moom xamuloo ne ñett dafa jël dugg lépp yàlla da ko programme démb mooy kenn ku nekk fa nga war a juddoo démb ko yàlla programme kenn ku nekk la nga war a am ci soxna ak na nga leen di amee yàlla démb la ko programme kenn mënu ci dara kenn ku ne la nga war a am ci doom yi cay góor yi cay jigéen lépp yàlla démb la ko programme moo tax boo gëmee yàlla di ab jullit da ngay delloo lépp sa borom te rafetal te rafet njot tey wax lu baax ci lu mel noonu kon yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel kon ñun ndaw yi nan wut kilifa nan wut kilifa kilifa nag danga koy segg tànn ko képp ko koo xool ñee jikkoom ñee dignitéem ñee njubam def ko kilifa mu nekk sa modèle ndaw su bëggee mucc walla mu rëcci day am kilifa tey waxtaan ak mag te bañ lu ñëw yóbbaale ko lu ñëw yóbbaale ko Sëriñ Bamba nee na ñett senegal da koy wax mais xamu ko mooy fulla ak fayda fulla ak fayda ak farlu mu ne ñett yi bokkut fulla mooy lan mooy bala ngaa dugg ci dara lankal xool ko jàmbar ko bu ñëw bu mbir ñëw rek nga dugg ci déedéet lankal bul bokk ca ñi ci njëkk a dugg ndax am na koo xam ne bu duggee mënul génn dugg génn du as asi gor du ko def am na koo xam ne lu mu dugg na ca dee kon nag na nga am fullaay bala maa dugg ci lii lan la loolu moo daal Omar ibn Khattab lislaam woote na ñetti at dugg ci xamul dëgg la wala déet xelam mayeegu ko dëgg la wala déet mu taxaw rek fi nekkoon bañ a génn ba xam ne dëgg carrément mi ngi nii lii mooy dëgg mu doog na saraax dugg da am na kook du jàpp di bàyyi sëriñ Babacar Si nee na góor du jàpp bàyyi góor du xam xam fàtte góor du soppeeku kon lépp looy dugg amal fulay bala nga caa dugg nga xam lan la bul bokk ci ñuy njëkk dugg de mu ne boo demee ba xam ne dëgg la nag amal faydaay dugg nag nga la ca fayda dugal boo ca duggee am ca faayda bu la ca kin kin niiti comme jeexaat nga ba gis dëkk jàppal waaye bu la ci kenn jili ñetteel ba mooy farlu boo xasee am fulla ba dugg am fayda ba ba toog ca mu ne na nga farlu nag farlu mooy bu la ca kenn ëppali amal pas-pas ak taxawaay bu la kenn raw Omar ibn Khattab bi mu amee fulla ak fayda ba dugg ci lislaam fekkoon na fa 39 personnes moom mooy quarantaine bi mooy ñeent fukkeel bi waaye ful farlu ga ak yitte ji muy roppi benn roppi benn par benn di roppi benn par benn ci ñi ko jiitu ba nekk deuxième position muy Aboubacar Sadiq boo ne Aboubacar rek ne Omar te pourtant fekkoon na fi vingt trente neuf mais farlu ga yéex a dugg lool fekk fi trente personnes mais ñoom ñëpp doublé na leen ci yitte ji ak farlu ja mooy boo xoolee ba gis li nga jàpp ne dëgg la fexeel bu la ci kenn ëpp ëppale bu la ci kenn ëpp ndam fexeel ba roppi ñëpp Aboubacar a ko jaaxal nag moom rek la munta raw moom rek la munta duruble waaye ku dul Aboubacar Omar duruble na la te moo mujj dugg kon loolu mooy yitte ji nga xam ne ndaw lu nekk war nga koo am li yëngu ci réew mi bari na woote yi bari na ku teeyut danga dugg ci musiba ñi naan man a bari na de ñi naan man a bari na ñi woote naan maa yor lii bari na ñi naan yàllaa leen wax ak yàllaa leen feeñoo yonentaa leen déeyëg lu nekk ñu ngi koy wax boo dee ndaw te amoo fulla nag da ngay mel ni këyit fu calleweer jóge rek fab la dangay ngay ni da ngay am jikkoy naw day am sal salguuf defe naa xam ngeen sal sal salguuf fi mu sax bu lu ngelaw li bëri bari day waaf rek bu ngelaw li dalee mu jógaat taxaw kenn mënu koo jëlee fi mu sax moom salguuf bu ngelaw jëmee nii mu ànd ak moom ngelaw jëm nii mu ànd ak moom waaye bu ngelaw jàllee rek mu nekk fa mu nekkaatoon mën nga koo tëral doo ko yóbbaale loolu mooy jikko ji ndaw lu nekk war a am mais liy woote bari na te ñu ci bari fan jëme nit ñi baaxul waaw lépp lu lay woo te àndut ak dignité àndut ak pas-pas àndut ak diine teey ca si daa ji nee na ñiy woote bari nan waaye nee na ñi ci ëpp safara lan jëme ñin ñi ni woo qawmun duhaatun ila niiraani laa nusiru mu ne ay nit a ngi woote ci Sénégal ku teeyut ñu yobbu la safara ndax teguñ ko ci siraata mustaqim teguñ ko ci njub ci seen intérêt bop rek lañ ko tek ak seen bëgg bëgg bop te lolo bari léegi ay yónintaan ci Sénégal yu dul jeex te ndaw yaang leen top ay la wax dem bay am yóninta bu jigéen mais ci rew mi te amna mbolo ñi di wote lu nekk yalla ma wax yalla ma won yalla ma jox plan bi yalla ma lepp ngi fi te ku ci nekk nag boo juddoo am mbooloo ku judd rek am mbooloo ñi la topp fu ñu jëm ak foo leen jëmee doy na waar lu doy waar la la Maodo si waxoon Maodo si bu Alaaji Abdu nee na senegal xolu sénégalais yi xolu sénégalais yi daa mel ni suuf su nangu loo ci ji mu sax gis nga boo xëyoon suba teel génn taxaw ne yàllaa ma wax rek nit ñi topp la am ñu la topp neex na xati ku la weddu ñu ne da koy dii nga waaw doy na waar moo tax yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel raw rawatina ndaw yi nag mag ñi ñoom jàll nañu dara jaaxalatu leen dara matu leen a fëkk mais ndaw yi moom nan góorlu gën a dal te li leen di musal mooy nan jàng ndaw day jàng boo jàngee ba pare dangay am fit da ngay am fit boo amee fitt nga boole ci doylu parce que ñett yi boo amut nga perte boo jàngut ñu nax la boo amul fit ñu xëbal la boo doyluwul ñu jënd la dara nga ci mënu ku jàngut danañ la nax neex naqati boo amut fit dana la xëbal nga ne yàcc yàccaaral soo doyluwut ñu jënd la nga ne nemm sama kalaas gi ñu bari tey ci ci télévision yi logal nan leen ba ne ba ban log log nañ ba ne ba ne cell dem na ba am na ustaas yoo xam danaa ñooy ustaasu état bi imaam yoo xam ne naan ñooy imaam yi état bi lu tax dañoo log ku log log loggal moo tax fokk ñu défendre ku ñu défendre ko su état bi neex na xati waaw fokk ñu défendre ko dara nga ci mënul ndax dañoo lekk 4-4 bu bees tàkk buy jar 40 millions wala 30 millions jël caabi kër jox la ot jël oto jox la jox la dund bu dul jeex jox lay malet dama ne fokk nga ne cell maam Abdou nee na ku bëgg wax nit ñi dëgg da ngay muñ leen yore l'islam bii buñ la ci joxee nga lekk rek da nga noppi da war a wax noppi danga war a bañ nangu da war a nangu bañ dara nga ci mënul ku log log loggal te gars yi ñoom seen malet yaa ngi fi dara nga ci mënul boo doyluwul rek ñu jënd la lu doy waar la boo doyluwul ñu jënd la gis ngeen imaam ndaw yàlla ko yàlla dëgëral ko rek xeex bi ñu koy xeex te ñaata téeméeri nit ñooy mokkal ca daaraam ja chaque année waaye dëggu ga ak njub ga ak muñ état ak soxlawul daraam ñu di ko kareel rek ñaari fan ñett ñu jël yóbbu tribunal ngir lan bëgg ko nasaxal rek buntu bu la ñu bëgg caa jaar pour fay ko ngir lan ana tey lan moo waroon jullit yëpp boo nekkee ci daara di jàngale benn juum benn juum dong boo ko defee ñu jàpp la tëj yéeme na boo dóoreeb xale sax mu damm ñu jàpp la tëj te ndogal day am boo ceeneeb xale ñu jàpp la tëj prison yi tëj prison yi ñaata prison lan def ceen ci seen baat yi seen seen digg yi mi ngi du jeex dama cent mètres fekk nit kun ceene ay tànkam ba mu ami léegat ami te tekki yor daara ji di jàngale alxuraan nga ne du ceene foo ko teg deux poids deux mesures te kii li bi def yar la jurut xale bi mais da koo bëgg a defar ku ne ak sa tempérament bi lay defar am na koo xam ne boo ko xoolee rek mu xam li nga wax am na koo xam ne boo waxee rek mu def li nga bëgg am na koo xam ne foog nga dóor ko am na koo xam ne dóor du jariñ dara ceene ceen ceen rek kay tax mu toog benn place def li nga bëgg kon nañ bàyyi xel loolu waaye gis nga tey lislaam moom moo amul ku ko xeexal lislaama dee lislaama nekk jarak kenn faju ko kenn jàppaliwu ko li Cheikh Omar waxoon Cheikh Omar nee na loo lépp ci Sénégal am na ku la jooyal saw naqar ba mu des lislaam li kulli qatilin naiatun yananahu wa laysa ala diinil muhaymini naihu nee na lépp lu ne ci senegaal la nga yàqule mbaa la nga deele ña ngi la koy jooyle ba mu des lislaam mu ne lislaam ci ëttu lis kër yi la commencé di dee commencé di laccaaral ci biir kër yi ci mbedd yi ci pénc yi waaye kenn jooyulu ko kenn jooyulu ko te mooy li xew kon lii nañ ci bàyyi xel mbokk yi yàlla ñu yàlla teg ci siraatu mustaqim yàlla ñu yàlla jubal waaye yàlla na doon ay jullit yu raxul dara yàlla ñu yàlla gënal suñu bopp yàlla ñu yàlla gënal li ñu am ak suñu njaboot loolu bu la ko yàlla gënale rek si ni coono bi yëpp mooy dañoo teg yàlla fële am lu ñu gënal comme loolaa ñu gënal nag fokk ñu am problème jàmm ji nag jàmm àddina jàmmi àdduna dëgg-dëgg mi ngi ci tege fi ñu yàlla jaarale heure buñ ko wàccee coono bi am yàlla jàmm la ñu yéene yërmande yërëm la yërmande la yéene mais nag nañ ko wut nañ koy wutee mooy ñu nangoo jaar fi mu jaar buur a ni ku jaar fu mu jaaru mu tëj leen kaso bi waaw lu tax yàlla moom li mu bëgg mënul faa jaar ba pare ne danañ am li ñu neex danañ am li ñu neex kon loolu nañ ci bàyyi xel adduna bi tas na jikko yi yàqu nan mbon gaa ngi gën a tasaaroo mbon gaa ngi gën a tasaaroo ah ñii nga xam ne ñooy ànd sàmm jikko yi li ñuy xeex yàlla leen ci yàlla jàppale ndax buñ dëgg buñ dëgëree rek mbon wàññeeku bu leen comprendre déglu leen wallahi alasimi boo mënta ànd ca mbooloo ma di yëngatu ci ñoom it war nga leen ñaanal yàlla yàlla dëgëral leen ndax li ñu bañkat jar na noo bañ jar naa bañ ndax yàlla bañ li ñuy bañ ak ab yonentam moo tax bi ma déggee barki dem ma mbokk bi di sant xeer jëme leen jëme ci ñoom man ah rëbbam yàlla day mi ngi xeeñ ci yow waaw rëbbam yàlla mi ngi xeeñ ci yow fokk ñu bàyyi xel ñu mel noonu te ñu ci senegal bari lool ku jéem lu baax ñu damm say tànk di la saboote di la yàqal lu jara bàyyi xel la ànd sàmm jikko yi mission lañu amee li ñuy bañ jar naa bañ de góor jigéen jar naa bañ te loolu bañ na fi na fi jóg bu ko kenn validé lii la ñuy xeex te ñun ñëpp la war kon nag suñ mission mooy ñaana leen yàlla yàlla dimbale leen ñaana leen yàlla yàlla jàppale leen yonent ne na ku jaar ci mbedd góor jigéen jaar ca soo mënee jaar meneen mbedd bul ca aw ku mën na ñàkk daje moom bul daje moom ku mën a ñàkk bokk moom oto di tukki bul bokk moom oto ku mën a ñàkk bokk moom jataay bul bokk moom jataay ndax ku yàlla rëbb la ku yàlla rëbb nag waxuma yàlla de rëbb ku yàlla rëbb nag bul xool sax takkandeer waxuma laa di gis keppaaram lu bone noonu kon ku ko bëgg a baaxal am na noo mel am na borom xam-xam yu leen di défendre tey ay boromi xam-xam am mbooloo di leen défendre jëla leen paar kon nag ku nekk war nga ubbi sam xel ubbi say bët xool fi dëgg nekk nga ànd fa fi dëggul nekkoon nga sànni ko ca àll ba kon yàlla ñu yàlla woon dëgg yonent daana wax ne yàlla yàlla nga ñu woon dëgg wërsëgal nu ñu topp ko yàlla yàlla nga ñu woon neen wër wërsëgal ñu ñu moytu ko allahumma arinal xaqa aqan warsuxna tibaahu wa arinal baatila baatilan warsuxna itinaabahu ku teeyut nag doo xamee liy dëgg ak li dul dëgg kon nag yàlla ñu yàlla bayal fi sunu kilifa diine yàlla ñu leen yàlla sàmmal yàlla ñu leen yàlla aaral njaboot gi yàlla yàlla barkeel seen dund yàlla na yàlla teg ci siraatal mustaqiim te li ma wax ñu bàyyi ci xel ndaw na jàng ndaw na am fit ndaw na doylu boo doyluwut ñu jënd la boo amul fitt ñu xëbal la nga ne yecc boo amut xam-xam ñu nax la lii rek la rawatina jamono bii nag tey la gën a war ñett yooyu so ndaw yi soxla ko tey la tey leen ko war a gën a soxla ndax liy ñëw ci àdduna bi ak liy feeñ ak liy judd lépp te ci ndaw yi lan soxla bu fekkul ñu am xam-xam amuñu fit doy lu wuñ rek dana nekk marchandise ca ñooña kon yàlla ñu yàlla defal njub ak tawfiix ñu ngi baloo ak ñëpp di jéggalu ñëpp di ziyaare ñëpp ah comme ni ñu ko waxee woon xam naa temps bi moo tardé moo tax sax ñu agsi ba fii mais timis rek lañ programmé woon mu jeex waaye nag coupure bi ak tardement bi lañ nangu ñu nit muy dogalub yàlla loo bëgg-bëgg na fekk yàlla dogal ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp luñ fi wax mu jub yal na ko yàlla def ci xol yi te jëfe ko lu ci jàdd mbaa mu dëng yal ñu yàlla jubbantil te jéggal na ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa baada nuhayyikum tahiyatan mubaraka alahiya assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi amuñ kàddu waaye ndigal la muy président bi moo ñu jox kàddu ñu war koo yëkkati waaye fii amuñu fi kàddu kon li ñuy wax lépp su matee yàlla subhaanahu wa taala la su mànkee suñu ñàkk a matadi la kon suñu président di Modou Ndiaye moo ñu yónni ki muy njëkk a sant nag muy al oustaz alxaaji Birane salaan fa tabarakallahu biran salaan wax nga li yàlla wax subhanahu wa taala teg nga ko fi nga ko war a teg kon oustaz ñu ngi lay ziyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay dañuy ñaan yàlla subhanahu wa taala nag li alquran wax mooy yal nañu yàlla may sami'na wa ata'na te bañ ñoo may sami'na wa asayna yal nañu yàlla may mooy dégg ak topp te musal ñu si dégg ak moy yal nañu si yàlla musal ñun ndaw ñi déggu nañ kàddu gi nga xam ne moom la Birane Salane sànni mooy wax yàlla ñun ndaw yi nu ñu war a toppatoo xee suñuy kilifa suñuy waajur ak suñ képp koo xam ne mag nañu fa tabaarakallaahu suñuy papa yi tamit fa tabaarakallaahu déglu nañ li yàlla wax te ustaas doon ñu ko wàcceel fii kon oustaz sant nan la gërëm nan la jox nan la sa wàcc way ñaareel bi ñu sant al imaam Mandiaye fa tabaarakallaahu ñu ngi lay sant di la gërëm yow imaam Mandiaye ndax wax dëgg fa yàlla nga xëy suba huit wàcce fii ab kaamil ubbi ko ñaan ko ba xat mu ko fa tabaarakallaahu kon imaam amuñ safay yaag du njaay kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye ba léegi di sant ki ñu tuddee nag ki nga xam ne moom moo fi su biraan salaan dafee suukar ak meew lépp ki jël kuddi gi di ko yëngal muy alxaaji mbay ñu ngi lay sant di la gërëm kon alxaaji mbay fa tabarakallahu yàgg ñi nga ànd ak ñu ngi leen sant muy waa ahlu sanaau rasul mooy ñi nga xam ne fu yonente bi bégee rek ñoom ñoo ko bégloo kon alxaaji mbay moo nekk sa boobu ñu ngi koy sant waaye ba di sant ki nga xam ne moom mooy suñu mbokk jigéen yi ki nekk sa bopp ba di mbaaj sekk ñu ngi koy sant ak awa sànqe ñu ngi leen di sant fa tabarakallahu waaye ñoom ñëpp nag di sant xale yi mooy jeunesse de Benno xale yi ñu ngi leen di sant waa bureau bi ñu ngi leen di sant waaye duñ leen sant am na ñuy njëkk a sant mooy ñan mooy ñi nga xam ne nekkuñu fi nekk bittim réew nga xam ne lu bëri suy dox si conférence bi ñoom ñoo ko doxal nekkul ñun ñun dañoo teew rek waaye ñiy doxal dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñi nekk bitim réew ak ñi nekk dakaar ak ñi nekk si dëkk yi sori yi ku mel ni alhaaji Ousseynou Ndiaye nekku fi Mouhamadou Mor nekku fi ak ñoom Maam Sayer ñoom ñëpp fa tabarakallahu ji ngi leen di sant di leen gërëm kon ñoom sant nan leen waaye ba léegi di sant bu baax suñu yaay ñu ngi koy sant bu baax mooy soxna Ami mi nga xam ne moom lañ tuddee bis bi ak du kenn ki nga xam ne mooy suñu baay suñu mag mooy musale maire Adda Kumba Ndiaye yow ñu ngi lay sant fa tabarakallahu waaye di sant ba léegi baay bas kenn du moom ñi ñëw 5 heures ñëw 6 heures waaye moom 3 heures xaw ma 4 heures fi la ko fekk bi ñu rangale fiisi mu ñëw rangale fiisu jigéen ñi rangale fiisu lépp fa tabarakallahu kon Baye Bass ñu ngi lay sant di la gërëm waaye di sant bu baax Baye Baba Camara waaye di sant Baba Camara fa tabarakallahu ak Karim mbokk yi wallaahi mënumaa sant ñëpp mënumaa sant ñëpp lépp loo xam ne mën na daal fo fa tabarakallahu yàlla la lépp loo xam ne matul fa tabarakallahu suñ bopp la suñ ñàkk a matadi la ñu ngi koy jéggalu mbokk yëpp waaye sant suñu yaay Xadi Mbay waaye du kenn suñu mbokk bu baax mooy soxna Issa ñépp ñëw nañ mbokk yëpp ñëw nañ wallahi laasim kontaan nañ bég nañ président lii nga ma waxoon su matee yàlla la su matul siman la maa ngi lay jéggalu di jéggalu mbokk yëpp wa axiru daawaana assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amin amin amin amin amin amin amin محمد ويسبه مواسم بالله